bani israila yal na yàlla xalak bani israila yaa rabbi yal na yàlla xalak bani israila yal na yàlla xalak bani israila yaa rabbi ba lislaam dooree ba ci bésab tey bii ba lislaam dooree ba ci bésab tey bii yàq wu mos a jëm ci lislaam rek ci yahud la jële yàq wu mos a jëm ci diine lislaam ci yahud la baxe ko ba léegi ba léegi ñoo fi nekk di jéem a yàq lislaam ñoo fi nekk di jéem a yàq diine lislaam alquran wax nañu ne alquran wax nañu ne gën a tat noon gën a tat ci ñi yàlla ci gëm yàlla moo di yahut mooy yahut ñoo rey yaxya ñoo rey yaxya ñoo doon jéem a rey isa ñoo doon jéem a rey isa wax nañ sax ne rey nañ ko ñoom ne rey nañ ko yahut posone yonente bi ba mu génn àddina. ñoo posone yonente bi ba mu génn àddina. yahud. yahud. ñoo fay ki rey Sidna Omar ibnu Xattaab. ñoo fay ki rey Sidna Omar ibnu Xattaab. nga xam ne bu dundoonati fukki at rek lislaam daj àddina. nga xam ne bu dundoonati fukki at rek lislaam daj àddina kat. yahud. yahud. ñoo xebal ki sos xawaarij. ñoo. xebal ki sos xawaarij. ñoo xebal ki sos xawaarij. ba yàq xare Sidina Ali ibn Abi Talib. ba yàq xare Sidina Ali ibn Abi Talib ba. yahud. yahud. ñoo hebal ki sos Shihan. ñoo hebal ki sos Shihan. Shihan ñi nga xam ne. Shihan ñi nga xam ne. dañoo def Aliyu muy yàlla. dañoo def Aliyu muy yàlla. ak i doomam. ak i doomam. noonu Babacar ak Omar. pas-pas boobu ci diine lislaam yahut a ko sos. pas-pas boobu ci diine lislaam yahut a ko sos. ba fi léegi. ba léegi. lépp lu jullit ñi tawat. lépp lu jullit ñi tawat. yow da ko sos. yow da ko sos. riba ñoo ko indi ci àddina. riba ñoo ko indi ci àddina. banque yi def intérêt yow da ko sos ci àddina. banque yi def intérêt yow da ko sos ci àddina. communisme. communisme. li gën a nekk noonu lislaam. li gën a nekk noonu lislaam. yahud yee yi ñoo ko sos ci àddina. yahud yi ñoo def julli li leen naqari ci li ngeen déggoon ci wetu weeru koor yi yahud yi ñoo def julli ñi li leen naqari ci li ngeen déggoon ci jamonoy koor gi yetti jàkka yi nga xam ne moo gën a màgg ci lislaam yetti jàkka yi nga xam ne ñoo gën a màgg ci lislaam benn ba moom benn jàpp nañ ko jàpp nañ ko kenn dootu fa nodd kenn dootu fa nodd kenn dootu fa julli kenn dootu fa julli te te seen bëgg-bëgg amut foofu. seen bëgg-bëgg ba kat foofa. jàkkaay yonent ba dañuy xase. jàkkaay yonent bi la ñuy xase. buñ sañoon jot Medina. buñ sañoon jot Medina. ba julli ñi dootuñu am fuñ jaar siyaara bi. ba julli ñi dootuñu jaar siyaara ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ñooñu ñooy neen ak noon kuy jullit. ñooñu ñooy noon ak képp kuy jullit. ku leen xamut war nga leen a xam. ku leen xamut war nga leen a xam. alquran xamal nañu ko. alquran moom xamal nañu ko. seen taarix ci àddina it xamal nañu leen. seen taarix ci àddina it xamal nañu ko. kon nag. kon. bu leen tubaab yi yar. bu leen tubaab yi yar. rafetal ñooñu fi yéen. rafetal ñooñu fi yéen. ba ngeen defee ne ay nit lañu. ba ngeen defee ne ay nit lañu. xisay bani Israaïla bëri na ci alquran la. xisay bani Israaïla lu bëri ci alquran la. yàlla jubluwu ci lu may xamal ñu ne ñooy yàq wi gën a màgg ci àddina. yàlla jubluwu ca dara lu may xamal ñu ne. mooy yàq wi gën a màgg ci àddina. yàlla xalak yal na leen yàlla xalak yaa rabbi te xalak képp ku leen di dimbale te xalak képp ku leen di dimbale yal na leen booleeg Amérique yal na leen yàlla booleeg Amérique yal na leen yàlla booleeg Amérique mi leen di dimbale mi leen di dimbale def leen ci gën ja suufee way suufee def leen nekk ca gën daa suufee suufee asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh